très euh, nga xam ne moom lañ ci fekk. Mhm. alors ci coowal suuf soos des ba tey. Mhm. ak révélation yi nga xam ni euh, Moustapha Diakhaté daal dina koy def euh, jaarale ko ci le quotidien bii di le peuple. Mhm. moom nag daal nay dikkaat ci patrimoine foncier yi nga xam ni moom président Bassirou Diomaye Faye daal na koy am. moom Moustapha Diakhaté mu ngi xamal ni président daal dinay am benn terrain agricole bu toll ci 43000 mètres carrés fële ci Sandiara. daal di euh, xamal ni am na lu toll ci 3200 euh, mètres carrés euh, fële ca Njagañaaw une maison bâtie sur 2000 mètres carrés à Mermoz et attribuée par le syndicat des impôts euh, des possessions justifiées par le fait selon Moustapha Diakhaté mmh. que Bassirou Diomaye Faye était inspecteur des domaines la lutte contre la prédation foncière devrait donc aller dans le sens de mettre à nu Euh, les propriétés foncières de Ousmane Sonko, Cheikh Diba, Wali Diouf Bodjan, bref, euh, tous ceux qui ont été inspecteurs des domaines euh, depuis 2000, d'après Moustapha Diakhaté. moom loolu doon xamal jaarale ko ci euh, le quotidien bii di le peuple dina xamal ni fële ca Sandiara moom président Bassirou Diomaye Faye am na fu toll ci 43000 mètres carrés. Euh, ak euh, suuf soo xam ni am na ko fële sa njagañaaw mu toll ci euh, mille 3200 mètres carrés moom aussi daal daal nuy xamal loolu bu mu koy am mi ngi nekkoon fële ca impôt et domaine moom nag nee na pour nu xeex li di coowal suuf si fii ci biir Sénégal dañ ko war dooree ci ki nga xam ni moom moo di Ousmane Sonko Cheikh Diba Waly Diouf Bodian ak ñëpp ñoo xam tey jii danoo nekkoon fële ca impôt et domaine dalee li nga xam ne nag moom moo di 2000. loolu la Moustapha Diakhaté daal di xamal ci coowalum suuf soosu moom moo na nga mën jàngate yooyu la kàddu waaw moo juste que révélation amu si. Mhm. li mu wax mi ngi mel ni nga nga xëy muy taw nga yeew naa nit ñi dem mi ngi doon taw. Mhm. information amu si parce que le président de la république lui-même. Mhm. a sa déclaration de patrimoine. terrain ya muy wax balaa ñuy fay fal le président Bassirou Diomaye fay euh, moom ci boppam moom moo ñu ko déclaré. Euh, wan ñu def déclaration de patrimoine am wax li mu am ci alal wax li mu am ci suuf boo wax ñu li mu am ci ay bor. ci li mu am ci suuf. mu mu mu mu cité ko wax ci un terrain de quatre vingt euh, mètres quarante six à Ndiaganiao acquis en 2017. Ah. à 3 millions de francs CFA. un terrain agricole de 4,3 hectares dans la commune de Sandiara acquis en 2022 à 15 millions 50 mille francs. Ah. Euh, un investissement clôture forage bassin pompe et système d'irrigation pour l'exploitation du champ euh, hors semences et frais personnels euh, vingt-neuf millions six cent six cent mille donc un terrain nu à Thiès en 2009 donc loolu yaakaar naa euh, président li mu am ci suuf moom ci boppam moom moo def déclaration de patrimoine mhm. wax euh, la mu ko jëndee ak la mu ko amee bii nee na am na ko à 3 euh, millions bi am na ko à 15 millions beneen bi am na ko à 29 millions 600. Mhm. ba à 700 000 donc loolu moom yaakaar naa ne. révélation amu si quoi nga mhm. topp ci nag di wax yaakaar naa ne sénégalais yi. am na loo xam pour man dañ leen war a respecter parce que lii nii ñoom xam nañ ko ils le savent. Mhm. balaa ñuy wax élection présidentielle la leen président Bassirou Diomaye fay wax. ne lii ak lii ak lii laa am ci terrain. Mhm. ñu dem ci élection président yi les sénégalais dem ci euh, bureau de vote yi fal président Bassirou Diomaye Faye bi defoon déclaration de patrimoine bi. Mhm. donc yaakaar naa ne loolu moom bon peut-être euh, opposé wu su compliqué da ngay mu da ngay mujj di di euh, nekk ci yoo xamante ne peut-être du am fondement. Mhm. Sénégal képp koo xam ne gis nañu la loo xamante ne nii logique wut nga nekk ci parce que ñëpp. en tout cas ñi xam euh, le président ñëpp xam nañu ne dafa daan yëngu ci mbay. Mhm. xam nga ne bu ñu nee diw doomu njagañaaw la moom. Mhm. day yëngu ci mbay ah, du nekk voilà du du la du la du la jaaxal. Mhm. donc euh, terrain agricole bii mu am. Euh, man dama def dama toog def recherche yi parce que bi mu waxee prix bi mu ko jëndee dama dem xool. prix wu mètre carré à à Sandiara. def def calcul mais da ngay xool ne li li mu explique fii dafay cohérent ak li mu wax ne moom la ko jëndee. donc yaakaar naa ne daal. ki nga xam ne wax na la ne la lii ak lii ak lii ak lii laa am. dama mhm. yaakaar ne amul dara loo xam ne nëbb nañu ko amul fenn tey ji li doon nekk skandaal mooy mu mu déclaré ñu ñett wala ñeenti terrain yi. Mhm. ñu dem ba si giir ñu wan ñu leneen loo xam ne moom moo ko moom te déclaré ko woon. pour man loolu dafay nekk problème. mais mhm. bu fekkee ne le président la mu am déclaré na ko wax ne lii nii laa ko amee lii nii laa ko amee et d'ailleurs président daf ñoo wax ba ay bor. Mm-hmm. parce que tey boo gisee mu fay fii ay 3 millions fay 15 millions fay 29 millions mm-hmm. mais da ngay dem fii <laughs> banque bu mel ni UBA président yoreel na ko 30 millions de francs CFA. banque banque bu mel ni BICIS mu yoreel ko 8 millions. <laughs> banque bu mel ni euh, benn benn particulier donc mu mu yoreel ko euh, benn particulier mu yoreel ko 10 millions de francs fa ah. donc mm-hmm. yaakaar wax dëgg yàlla nag. transparence mun tawee su lii munoo fi nekk. président Macky Sall nekk fekk sàcc yu rëy yi suñu laa dégg nga tam leen sàcc. Mhm. ñu bàyyi ba tey jii un président boo xamante ne nii def na euh, déclaration de patrimoine nga bëgg xam nga. c'est-à-dire am na nit lu mu doon dénoncé du temps du président Macky Sall. Mhm. soo ko dénoncé tey au moins dañuy comprendre ne ah moom da yàgg na am monsieur yàgg na xeex loolu. Mhm. mais jamono bi fi ñi sàcc yi ñuy wax nii ñi rapport yi di wax nii moom nekkoon na ci seen biir dafa mës a taxaw dénoncé leen. ñii di sàcc sàcc yi gën a rëy ci Sénégal xam na leen mosu leen dénoncé uh-huh. pourquoi tey jii mu bëgg euh, juste parce que dafa bëgg nekk di opposé wu mu bëgg indi yenn problème et je uh-huh. pense que euh, ay waxam waruñu sax di si di si attardé wu même si leeral dafay baax comme à chaque fois. Hmm. bu yenn mbir yi génnee nga jàkkaarloo ak nit yi euh, joxe ci sa xalaat parce que peut-être am na benn moom bu toog fële boo xam ne bu déggee lu Moustapha euh, Diakhaté wax. mun na si hmm. am ay doute jàpp ne euh, am na yu leerul yoo xamante ne ni am na. c'est bien hmm. tey jii kooku nga xamal ko ne ko kat moom lii muy wax ni naan dafay révéler li muy révéler du révélation parce que lii président Diomaye ci boppam moom moo ko def ci déclaration de patrimoine am donc nañu nañu nañu nañu dem daal ci ci sujet yi nga xam ne moom moo ëppal solo nit ñi nga xam ne ñu ngi seetaan donc ñu ñu ñu gën a si yooyu mais benn Moustapha Diakhaté boo xam ne <laughs> xam nga lu gën a bon ci ci ci ci ci àdduna si laa mhm. gis nga tey ji âge mag mhm. dafay nekk synonyme de sagesse mhm. parce que tey boo gisee mag li ñu leen ñu ko wax mooy mag voilà da nga ko war a déglu mu jox la conseil mag bu waxee waxu mag mais mag yoo xam ne ay totore la ñuy wax mag boo xam ne ba ma ko xamee ba ma ko delee déglu ba léegi musiba naaru laay rek lay wax si gémmiñ gi donc nañu nañu dem si yeneen quoi moo gën. alors noonu euh, Matar. gis nga euh, Moustapha lu mu wax. mais aussi si wax ji dafa dem fu gën a sore. Mhm. maanaam euh, suuf si nga xam ne Ousmane Sonko am na ko tudd si Waly Diouf Bodian. Mhm. ñoom ñëpp daal nee il faut que nu nu nu ko. waaw xam nga tey boo xoolee ci angle bi nga xam ni andee na ko information bi. Mhm. en tout cas da nga ciy sentir benn benn touche politique benn touche en tout cas. Euh, d'opposant boo xam ne dafay génn ci information bi mu joxe parce que tey boo xoolee ñi mu tudd muy Waly Diouf Bodian Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye tey ñooñ boo leen waxee dafay dem ci diggante dafay dem ci ci sa xel day dem ci Pastef mhm. donc tey est euh, man j'aurais préféré mu joxe woon ko ci beneen angle ci beneen ci <laughs> ci beneen domaine boo xam ne peut-être yi au moins nañ sentir que moom kat dafa taxaw taxawaayu benn patriote taxawaayu benn benn moo ko jiite au moins nga mën ko révéler nit ñi mën nit ñi mën mën ci ba mën ci bàyyi xel waaye tey boo ciblé ñett ñoo xam nga mhm. a mën a voilà moo tax ma la <laughs> tey moo la tey gis nga <laughs> information bi du am poids parce que tey fi mu ko fi la sénégalais yu bari dañ naan ah paa de ci affaire yi mu doon def rek affaire oppo affaire affaire <laughs> lay taxawee te boo te loolu soxla wuñu loolu <laughs> xamuñu loolu lañ soxla au benn sénégalais boo xam ni suufu askan bi moom moo ko bu gisee ku koy ku mu taxaw kat ki ni kii carrément moom dafay dafay dafay def loo xam ne yoon santaane ko ci wàllum moins ñu mën ko def mais tey ah, Diomaye amul benn rapport boo xam ne mën nga ko épel épinglé nga ko ah. wala amul kenn koo xam ne jeytu nga ko ci benn ah. mbir boo xam ne mën nañ ko tudd ci Sénégal mu jëm ci war pour pour wane pour wane alalam donc kooku tey nëbbatuwul donc tey boo génnee peut euh, yenn yenn révélation yi jëmale ko ci benn camp boo xam ne ñoom ngay jàkkaarlool en tout du am poids man j'aurais aimé mu waxee ko neneen wala mu génnee ko faneen mais mais pas mais pas ci manière bi man daal mm-hmm. gisuma ci comme ni moom moo di wax amul information <laughs> <laughs> non non sérieux du information xam nga xam nga non honnêtement eh. parce que ñi mu ciblé la donc c'est c'est un politique quoi pour pour wax ni ñii dañu wax wax suuf ñoom bëri nañu suuf non inspecteur des impôts xam nga xam nga loolu dafa nekk tuuma xam ne mm-hmm. dañ ko yàgg ci ñuy liggéey à la DGID yàgg bon et la réalité mhm. euh, boo si génnee yenn benn minorité daanaka ña ca des moom suufu Sénégal bi yëpp ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko moom mhm. et puis euh, scandale yi ñuy wax ci suuf yi defe naa mënoo see bu doon ñetti tere yoo romb rek ba ca topp doo si ñàkk dégg ñu ne la kii ma ngay liggéey ci impôt et domaine mhm. et d'ailleurs nu ñuy def ba am suuf yeeg yeneen ak yeneen ñoom à euh, à chaque fois mhm. seen loxo dafay taq ci ci mbirub suuf mhm. donc peut-être dafa bëgg a def corrélation entre euh, fañ doon liggéey ca DGID ak coowal suuf nga xam ne ñoom d'habitude ku fay liggéey moom Euh, uh-huh. c' est très nga gis pour man foofu foofu man analyse boobu laa si def mooy uh-huh. ku mel ni Bassirou Diomaye fay uh-huh. Ousmane Sonko bi euh, def defoon déclaration de patrimoine en 2012 wax la mu amoon ca xaalis wax euh, këram gi nga xam ne moom la am fii ca ci cité kër góor gi ak yeneen ak yeneen donc pour man rar na nga gis koo xamante ne ma ngay liggéey Euh, fële ca DGID te duñ la konteel ay benn ñaar ñetti ñeent juróom ba fukki kër. yi mu moom ci biir dëkk bi. ah mhm. ñaar kër nga ko ah, konteel. demal demal laajte war nga def sa enquête demal. sérieux eh, est d'ailleurs loolu occasion la. c'est ça <laughs> léegi lan moo tax Moustapha Diakhaté du wax si si genre situation. laalu si amul ba am na ñu nekk ci biir réew mi nekk ci biir camp am. xam ne mhm. ñu leen di tuddal ay vingt ay ay vingt tudd ko. pourquoi dañu wax si si cas yooyu. mais daal euh, le président Diomaye mi nga xam ne moom moom moo ñu ko waxal boppam. man man gën a gën a ko sénégalais yi wax. oui mu ko génne def defar déclaration de patrimoine am. Mhm. présenté ko Sénégalais yi. mais pendant ce temps là leur candidat seen candidat bi ñoom est ce que def na déclaration de patrimoine. te woon nañ ko ci. defu ko ay yoon yoon. Ah, mais yow nga bàyyi yooyu yëpp. xam moo tax ma ne la dañ ñuy distraire. Hmm. et eh, loolu moom yaakaar naa ne. mais man maa ngi xaar mu génne mu génne preuve parce que tamit tey mënoo accuser le président de la république. fii nag ñii duñ fi kenn du fi. loolu ah! duñ yàq suñu temps. non man ay procès diffamation. non man non man non sérieux non parce que tey accusation boobu dafa dis. Hmm. dafa yàgg quoi donc il faut il faut. mais garaaw mais xam nga lu mu wax dafa ni. képp hmm. ko jaar impôt domaine dalee ko 2000 atum 2000. mais wax oh, jaar na impôt domaine lu tax tudd ko ci mbir mi. <laughs> tudd ko ci waaw loolu voilà man loolu ma jaaxal. Eh, mais gars yi ñoom bañuñu ñoom bañuñu lool de. c'est-à-dire gars yi ñoom doo mës a gis ku toog. naan man jëluma wala man du ma sàcc. ñoom li ñuy wax mooy ñun ay sàcc lañ on est d'accord mais yéen tamit ay sàcc ngeen. <laughs> parce que pendant tout ce temps coow li muy bëri bëri yëpp loolu la de mosoo dégg ku si toog naan non man damaa set loxo wala non non. Mhm. ñoom seen problème mooy ñoom nangu nañ ne dañoo dëng. mais oui Ousmane Sonko ak Diomaye ñoo ñu gën a dëgg. Mhm. ñoom seen lay yëpp mooy ñun dëng nañ d' mais yéen aussi yow fu fa rongoom sañoo taxaw. di wax ne ànd nañ fenn man jël naa moom tamit jël na. Mhm. cest à ñoom seen logique boobu lañ nekk mooy jéem ñu setal seen bopp mais ñoom dañu bëgg a gëmloo nit ñi ne ñun kat nit ñu dëngee ba ngeen ñuy xeex ñun ak ñoom ñoo yem mhm. et tout le temps seen communication au mhm. moins bu dee wax na loolu na génne li nga xam ne moom mooy moom moo koy firndeel ah, bu fekkee jomaay dafa jël suñu suuf ñu mhm. nangu ko parce que muy que soit muy jomaay que muy Ousmane Sonko que muy Waly Diouf Bodian que muy keneen ak keneen <laughs> tout gi ngay wax moo si amul parce li déclaration de patrimoine président Diomaye la. li mu wax li mu wax ne moom la am. Mhm. yow yaa waxal sa bopp ne man am naa lii ak lii ak lii mhm. moom mu di reprendre yooyu. xam nga loolu kenn du la si ne déformation. Mhm. vraiment kenn mënu la si topp moom li président Diomaye wax ne la am moom loolu la ñëw indiwaat ko ba def ci ay commentaires boppam. loolu du information. alors Momo. Euh, tudd nga ko léegi muy rapport.